Cheikh Oumar Sy euh, ñu ngi lay nuyu. maa leen di fay. yow nekkoon nga député ci assemblée nationale tey yaa jiite observatoire de suivi des indicateurs de développement économique en Afrique euh, du OCDEA alors président de la République euh, dana jëbbal assemblée nationale projet de loi ngir li assemblée doon def mu mën koo def ñu wax ko loi d'habilitation ndax mun nga ñu expliquer un peu loi boobu ak li mu wëndoo. jërëjëf xam nga li ñuy jiite lépp mooy di féliciter le président de la République dëkk bi dañu nekk ci jafe-jafe ak pandémie bi te jafe-jafe yooyu kenn prévoir ko woon ba ñuy commencé année bi euh, te loolu moo indi nag ba ñu demee ba jafe-jafe bi commencé gis nañ ne fu mu nekk ni lépp a taxaw na avion yi naawatul euh, presque dara dugatul lu dul yenn besoin primaire yi nga xam ne mën nañ ko indi loolu moo indi président de la république ne dinay jël loi d'habilitation loi d'habilitation li ko mën a expliquer rek mooy loi bi nga xam ne tey du ci léegi léegi rek dañ koy mën a jël comme déclaré nañu état d'urgence président de la république ñaan waa assemblée nationale ñu gën ko yaatal dooleem pour nu muy mënee exécuter budget bi ak nu muy mënee def ay yenn dépenses yi pour mu wàññi jafe-jafe yi ñi nga xam ne tey dinañ ko jànkoonteel ci impactu coronavirus bi muy ci secteur de la santé ñu war a mën a gën a jox euh, moyen secteur de la santé war a mën a gën a jox moyen euh, force de sécurité yi xool naka la dimbalee néew yu doole yi pour ñu mën a am lu ñu dundee ci période d'urgence bi parce que économie bi doxatul euh, dimbali tamit entreprise yi ak yooyu loolu moo tax loi d'habilitation bi ñëw loi la boo xam ne day permettre président de la république ak gouvernement am ñu war a mën a bañ a dugg ci yenn procédure yu gudd yi pour ñu mën a exécuter yenn dépenses yi. Hmm. loolu daal ci gàttal loolu mooy loi d'habilitation bi. alors loi d'habilitation boobu bala ñu koy voter fan la ñu war a jaar. waaw loi d'habilitation loi moom hmm. ci assemblée nationale rek la mën a jaar mënul jaar feneen. ci hmm. loi d'habilitation foofu la war a mën a jaar parce que député yi ñoom ñoo toogal askan bi ci député bi lañ dañ lañ ko yóbbu député yi ministre bi ñëw expliqué leen lan la. président de la république euh, bëgg ci loi d'habilitation bi naka la koy exécuter lan la leen ñaan pour ñu may ko ci biir loi bi mm-hmm. ak fan la alal boobu ñu bëgg yëkkati fan la jëm bu ko defee moom nee na dina mobiliser mille milliards dina joxe par exemple soixante neuf milliards mm-hmm. yi nga xam ne dina ko jox ci ndimbal ak yi mu war a jëm ci ministère de la santé ak yooyu yëpp ñu war ko mën a tënk mu ne nag dama leen bëgg ñaan ci lii mooy décider ma mën koo def te doo leen ma ci tegal ay conditions yu bëri mm-hmm. ngeen wàññil ma conditions yi nga xam ne bu may lancer marché yi wala bu ma koy wut tamit du ma nekk ci ay procédure yoo xam ne dafay tardel liggéey bi te bu ko tardalee am na ñoo xam ne mën na leen gaañ te dina tax Euh, jàngoro bi gën a law ci wii dëkk bi. alors buñ ko euh, voté ba pare moom président ndax am na ay euh, charte yoo xam ne xëy na war na sàmmonteeg moom bu dee am na loi d'habilitation boobu ba noppi. waaw mais xam nga tey lu mu nekk loi d'habilitation ba léegi dafa war a nekk ci benn cadrage budgétaire du lenn loo xam ne rek dañ koy woote mu def lu ko neex déedéet mais dafa am lenn loo xam ne da koy won parlementaire yi won leen fu mu bëgg a jaar fu naka lay utiliser xaalis bi mm. mais tamit parlementaire yi ba tey même buñ ko votalee dañuy ànd saytu lan lañ ciy def lan lañ ciy def fan la xaalis bi dem est-ce que dina méngoo ak li nga xam ne tey loolu la président de la de la république wax loolu tamit euh, dina dimbali président buñ ko defee mu gaaw ci liggéey bi mais dañu war a bàyyi xel te tamit ne xaalis boobu waru ko mën a utiliser wala warul mën a décider ni fii lañ ko utiliser gouvernement bi dugal ko feneen wala ñuy jënd ci li nga xam ne naka sa noonu hmm. déedéet dañ dafa war a méngoo ak li nga xam ne tey moom la état d'urgence bi laaj moom la situation bi laaj mais surtout mu fexe mu gën a gaaw ak nu mu gën a gaaw pour mu egg ci askan bi nga xam ne ñoom ñoo ko soxla. waaw lii nga wax nii bu fekkee am na maanaam xaas bi defuñu ko fañ ko war a def est-ce que assemblée am na euh, lu koy may mu mën a xëy na dakkal loolu. waaw mais assemblée nationale ba tey da koy saytu. du ko mën a dakkal dakkal mais dina mën a woo gouvernement bi. interpellé ko ne ko ah yow li ñuy laaj kat lu tax nga def nii bu boobaa exécutif bi dafa war a tontu assemblée nationale. Mm. war a mën a justifier dépense yu muy def donc assemblée nationale dafay war a gunge président de la république ci loi d'habilitation bi di ko saytu mais du assemblée nationale kese même la société civile ñu fi toog dañu war a saytu xool ndax loi d'habilitation bi ñu jël. est-ce que mu ngi méngoog li ñu bëggal defal population bi mm. loolu tamit euh, assemblée nationale am nañu sañ-sañ xool ko am nañu sañ-sañ toogaat ak président de la république ak gouvernement am ndax liggéey bi mu ngi méngóog ak daraja bi ñu laaj ci loi d'habilitation alors yow en tant que sénégalais d'abord noo jàngatee euh, crise bi ni ñu ko gérer ci Sénégal. waaw crise bi dañuy rafetlu déjà tey bi ñu ci ànd ak gouvernement Sénégal c'est vrai que dès le début amoon na tiitaange parce que ñu bëri laajoon nañu déjà président de la République mu jël yenn mesures yi nu ma gën a gaawee mais yenn saa tamit état dafa am nu muy fonctionner peut-être loolu moo tax gis nañu déjà ne am na ay mesures ñu ñu commencé woon jël ba contenir. ba ñu njëkkee dëgg dégg cas yi ñu contenir cas yi mais après ñu commencé jël yeneen mesure parce que comme feebar bi dafa gaaw di law mm-hmm. ñu décider dem ba fu ñu toll nii ci ay couvre-feu arrêté nañu avion yi arrêté nañu frontières yi entrée ak sortie bi foofu la nit ñi indi tàngoor bi foofu la ñu doon jógee état jël na ci mesure mesure bi nga xam ne tamit ñun ñëpp rafetlu nañ ko mooy couvre-feu bi mais couvre-feu bi tamit dafa am ay incidences yu muy indi mm-hmm. parce que boo nee couvre-feu vingt nit ñi dañu il faut ñu teel a wàcc teel a wàcc boobu gis nañu ba ñu njëkkee wax état d'urgence bi ne amoon na ay jafe-jafe yu bëri ci sénégalais yi pour ñu am ay moyens de transport mhm. te loolu tamit ci mesure yi peut-être que euh, état bi euh, jëlul woon aspect boobu nu mu ko waree mhm. dañ ko waxoon mais mesure d' application bi xawoon na jafe hmm. mais depuis démb gis nañ ne société comme Dakar Dem Dikk hmm. ñoom tamit jël nañu ay mesures pour gunge population bi bu ñu teelewaat gis nañ ne état bi le président de la République jël na décision que nit ñi dañu war a xëy neuf heures wàcc quinze heures hmm. pour nit ñi mën a gën a teel a dem seen i kër arrêté nañu rassemblement yi tëj nañu mosquée pour loolu yëpp pour jàngoro bi bañ a law mais day jokkaale tamit ay jafe parce que nit ñi tamit il faut ñu mën leen dimbali ñu mën a am koom-koom as ñu mën a mën a dundal seen waa kër loolu tamit moo tax loi d'habilitation bi di ñow mhm. mais gis na ñu aussi que ba tey des na mhm. des na mooy lan mooy marché yi ba tey nit ñi ñu ngi fay dem mhm. te marché yi tamit foofu la nit ñi gën a bëree te foofu am na ay marché yoo xam ne boo fa demee salte yu dafa bëri te nit ñi amul benn mesure de prudence et respecter loolu te loolu tamit état bi war na ci mën a gën a taxaw mais man pour man état bi dafa war a décider que marché yi ci boppam comme nit ñi dañuy wàcc ci quinze heures marché yi dañu war a tëj à quinze lu tax parce que tey yow bu nekkee yow da nga yónni sa jànq marché pour mun dugg doo ko neen dugal pour añ mu ñëwaat après ngoon nga yónniwaat ko pour mun dugg pour reer da ngay ne déet boo demee marché dugal pour añ ak reer hmm. donc bu demee bëccëg il est fort probable du demaat ngoon ci leneen lay nekk. Hmm. day day nekk di togg reer donc boo waxee ne nit ñi marché bi quinze heures lay tëj bu tëjee quinze heures ñu équipe de nettoiement yi ak ay ñoom UCG yooyu def désinfection yi ak ak mairie yi. Hmm. balaa dix huit heures dinañu pare ramassage d'ordures yi ak nettoyer marché yi vingt heures balaa muy jot ku nekk di nga nekk sa kër mm-hmm. donc di nga wàññi risque bi encore de contamination bi mm-hmm. euh, loolu war na mën a am circulation bi tamit bus yi ak loolu ñu gën ko war a mën a yokk bu ko defee bu demee ba ci biir ba nga xam ne bu taree nag ba il faut ñu yokk mesures yi ne peut-être couvre-feu bi dootul commencer vingt heures mais dix-sept lay commencer parce que nit ñi plus ñuy circuler plus mm-hmm. virus bi mais foog naa loolu daal bokk na ci li nga xam ne Euh, mesure yi ñu war a jël mais li ma gën a tiital nag te président de la république xam na ko parce que wax na ko mooy affaire dette bi dafa neen na banque mondiale ak FMI fexe ba dette bi ñu baal ñu ko mais ñoom dañu ne dañ koy suspendre lu tax ñu président bëgg ko annuler parce que ñun ba ñuy commencé année bi état du Sénégal dafa voté pour quatre mille deux cent quinze milliards pour ay recettes fiscales te loolu ay recettes yu ñu prévoir la ñu def ba mois de bi commencé ça veut mois de mais gouvernement du mën a récolter cinquante pour cent ci recette am boo ci dindee loolu immigré yi nga xam ne tey ñooy dimbali lu dañu doon dugal ci biir dëkk bi plus de mille cent milliards par mois ñooñu fu mu ne nii en Europe et partout dañ leen confiné ñu toog la seen kër ñu nekk en chômage technique mënatuñu yónnee xaalis donc ci diir boobu état du Sénégal dina perte plus de trois mille milliards mu méngoog trois quarts mooy lu ëpp xaaju budget du Sénégal donc day am ay jafe-jafe bu ñu suspendre dette bi bu ñu reprendre économie bi non seulement état du Sénégal dafa war a fay dette boobu mais dinañu demaat boruwaat pour mën a faxe urgence yu ñu yu ñu ngi koy saafara te boobaa day gën a diis ñun bu nekk États-Unis dugal na xaalis bu bëri Europe dugal na xaalis bu bëri ci économie am ñëpp dugal nañu xaalis bu bëri te am nañu doole boobu war nañu am sañ-sañ ne leen tamit dette bi nga xam ne dañ ko teg suñu kaw dañ ko war a annuler parce que de toute façon ñun situation bi ñu nekk mu nekk situation bu jafe mooy politique banque mondiale ak FMI boo xam ne politique boobu musul baax ci ñun hmm. taux de croissance kenn du ko lekk yàgg nañ leen ko wax tey gisuñu am benn effet boo xam ne taux de croissance am nañ ko hmm. taxaw nañ fi ñu bëgg a suñu état privatiser lépp bañ ko privatiser la jafe-jafe yi gën a yokk hmm. donc te gis nañ tamit mooy seen xalaat bi ñu doon wax ay libéralisme ay globalisation warul am frontière ak yooyu loolu coronavirus war na ne loolu taxawul fenn parce que ba pandémie bi commencé ñëpp a tëj seen frontière ñëpp ñu ngi toppatoo seen bopp loolu moo war a indi tamit ñun ñu xalaataat jàppale président de la république nee na tête bii nga xam ne tey dañ ko teg suñu kaw te mu nekk tête bu nekkul yoon na ko banque mondiale FMI ak ñeneen ñi dañ ko annulé complètement yaakaar nga loolu mën a nekk. war na mën a ne États-Unis dugal na ci économie man deux mille milliards France mu ngi dugal trois cent milliards yeneen dëkk yi ñoom mobilisé nañu au niveau international cinq mille milliards de dollars waxuma cinq mille te ñun li ñuy wax huit mil milliards la suñu dette bi fii mm. donc loolu xam nga ne mën nañ ko effacer ba effacer dettu africain yëpp mm. loolu wala mën a ne xanaa kay dañ ñoo bëgg a maintenir ci niveau ci rek mm. ba pare ba diggu jamono nu mu leen neexee mais xam nañu ne ñun politique bi nga xam ne tey fi ñu jëne banque mondiale ak FMI baaxul ci ñun te li ñuy laaj comme ñun amuñu politique monétaire bu dëgër avec BCEAO li ñuy laaj mooy nañu tegg suñu ndodd dette boobu pour que ñu mën a nooyi tuuti mën a démarrer waat suñu économie sinon du amul sens. très rapidement ëllëgu Afrique noo ko gisee bu ñu génnee ci crise bi. waaw mais ëllëgu Afrique moom ni ma ko gisee mooy lii dañ ci war a am njàngat. xoolaat suñu modèle économique yëpp xam na ne modèle économique yi européens yi doon jaay baaxul ci ñun. suñu modèle économique mooy fexe ba suñu biir dëkk ñun ñu naat mooy fexe li ñu am ci suuf war ko bañ a jaay ay société étrangère ñu fexe. développé ko ci wàllu agriculture ci wàllu formation professionnelle ci wàllu ay PME PMI ak suñuy ressources naturelles muy pétrole gaz ak yooyu ñu ngi xool li ñu koy transformer fii sécuriser suñu dëkk ba pare surtout si secteur de la santé gis nañu tey mooy secteur bi gën am solo parce que bu amul woon santé bi tey ñun ñëpp torox nañu mm-hmm. donc yooyu ci ëllëgu Afrique dañu war a xoolaat modèle yi war a gën a jàngaat suñu situation président de la République engagé waat beneen waxtaan ci plan PSE pour mu nekk benn li ñuy tubaab yi di wax un plan endogène mu jël en compte li nga xam ne tey ñun la ñu soxla parce que bu ñu lii dalaatee rek dañuy suux te bu ñu suuxee tamit dëkk bi day gën a tar te day metti ci ñun te foog naa ne lii leçon la pour ñu mën a génn ci lii war a mën a xool naka lay jëmee kanam te du ñu dépendre ci Chine du ñu dépendre ci Europe du ñu dépendre ci ñeneen ñi ñu dépendre suñu bopp. Cheikh woon tey itam jiite observatoire de suivi des indicateurs de développement économique en Afrique di OCDEA. merci beaucoup jërëjëf.